amee xadi namoon nañ la de nam naa la billaay maa la billaay maa la sama yaay yàlla xam na ko maa la raw yow ya yaa jógee rek ñëw bellee nii ah, nu may def gis nga ko de ah. voyage bi gis nga rek xaw a metti bay bëgg a dee sama baax na yaa wax lii <laughs> yow laay jàppale yaay sama doom danga bëgg àdduna gis nga ko de doomu jàmbur yow laay jàppale ah sañ sa moom danga kaa jërë ñu bokkoo ko kenn yaa wax lii <laughs> <laughs> yaay sama doom gis nga voyage bi de barki démb laa ñëw mais gis nga ko rek namm leen bay bëgg a dee waaye yaa ngi ci bu baax. maa ngi ci jàmm bu baax. waaw jàmm noonu la nammee nag. maa la raw moom dafa génn. ah. Mhm, naa ko moom tamit de. lay moor baa soriwul rek. non xaw na sori nag. ah naa ngoon lay ñoom moom. wax nga dëgg. Euh, fan yi sax man ak yaayam mi ngi ñi ngi doon waxtaan ma nag moom mm-hmm. mais li ma wax dëgg yàlla neexu neexuma ah, waa ndax euh, Mara xale bu jigéen bi mu fat wax dëgg yàlla waru koo fat waru koo fat ndax nit ki li ñu naan bët bu rusul toj warul jël xale bu jigéen indi ko ci kër gi di ko fat mm. da nekk fi mais baa amu leen ci benn problème rek li nga wax moom dëgg la moom. Mhm. c'est que nag Mara xol bu rafetam rek moo koy. toñ dafa baax xale bi dafa baax. xol bu rafetam moo koy toñ te ki mu fat nii li mu dund man dama ko dundoo. parce que maanaam bi may fat. Mhm. dafa metti woon trop. gisuma sama yaay gisuma sama papa gisuma sama benn ma xam te man na jàppale moom rek moom laa gisoon. dëgg kon tey bu fat mu demee noonu rek ma dama koy yërëm. damay jàpp que ne man li ma dund rek moom lay dund. dëgg mais fan yii moom ñu ngi waxtaan ak moom. Mm-hmm. xam naa fan yii. Mm-hmm. dafa dafa jote woon nag euh, seen waa kër mais xam naa fan yii dina dem. bu maaraa bu ñëwee. Mm-hmm. dinaa ci waxtaan ak moom ñu jëm ko jubóole ak fameyam mu dem. waaw nañ def la tout mu génn ndax tamit. gis nga dafay am loo xamante ne nii euh, xolom bu rafet moo ko yóbbee lu nekk. dafa baax saan mais nag mun nga fat nit am ci ndam. mais mun nga fat ni tamit am ci défaite te te gis nga yoon bi ma gis nii mhm. su continuer di ko fat rek mun na ci am défaite ndax ñëpp yamuñu mhm. kon defal la tout waxtaanal ak moom mu jéem a def pexe nuñ koy jubalee ak i mbokkam mu génn dem ci ay mbokkam dëgg la parce que waxe mhm. mag moom waaw la sant ça va kenn mu ndaw yaa ngi ci jàmm am nga jàmm gëj naa laa gis def ma gëj gis nag te ah. rax ci dolli man dama laa mere déet waay Diouf mere trop lu tax loolu yow kañ laa la waxoon ne la ma ndax man fii dama fi ragal a toog li ma bëgg mooy nga ñëw kër ga seet ma waaye heure bu ne man maay ñëw dama bëgg nga jàpp nag comme ni nga jàppee papis man ak papis benn lan moo sañu daal nga ñëw gàlle seet si ma ñu toog waxtaan nga xamee bi am na pare ñu gën a yaatal ya, waaw loolu moom dëgg la mais lan moo nga ragal fee ñëw yow ak papis benn nga te kër gi sa kër la lan moo nga ragal fee ñëw xam nga nga gis góor ak jigéen ñu toll suuf ma mer bi yaay papis man daf mel ni moom moom daf may xencu nee na man damay xencu jigéen yi waaye moom moo may xencu heure bu mu duggee ci kër gi rek moom dafa mel ni moom ci man lay nekk te loolu lay bañ te man bëgguma sama mbir di siiw dama bëgg daal nga ñëw gàlle ñu toog waxtaan waaw en parlant de mer boobu sax de mhm. moo tax euh, yaakaar naa ñëw seet la du yomb hmm. ndax fan yii si ginnaaw dama fee génnoon dem seeti woon samay copine mhm. mais góor bu ne góor nga ndax guddee naa jour boobu guddee boo xamante ni woo na ma yedd na ma tey bëgguma woon loolu mu am fi mu ku goon naa fee nekk ba li may paree sama jàng dem ñibbi te a parce que mag li muy gis ñun xale yi duñ ko gis ñun aayaluñu dara. mais Mara moom bu ñëwee. Mhm. naa ci waxtaan ak moom. Mhm. moom ñu xool nuñ ñu def ba mu delluwaat ci famille baax na parce que nit yëpp tamit wax nga dëgg bokkuñu yem. Mm, yem ñu de. dëgg la mais man dama ko yërëm rek. non dëgg la parce moom. moo mm-hmm. tax ma ko ñu fat ko. wax dëgg fa neex amul problème nag. dëgg la la mais tamit comme que dalul seen xel moom. Mm-hmm. na dem rek. mais wóorul liñ la wax rek ndax euh, gis nga yow euh, sa diggante ak moom macha allah jaar nañ foo xamante ne ni ndam ndam moo ci njëkk mujj ci. mais am na ñoo xamante ne dafa am ci ay famille yoo xamante ne soo duggee ci ñoom rek problème kese ngay doon mm. comme deme na noonu na def lu tuub mu génne xale bi kër gi comme li nga wax rek nag comme yow jël nga engagement pour euh, dox ci wax ci wax dëgg yàlla gisee woon naa ko neneen nag xawoon naa ci tiit li mu nekk ci ah, kër gi mënul fat nit na ko dàq dëgg la ko man sama xol duma ko may. dëgg la parce mooy kilifa moo dem ba fat ko. Mm-hmm. kon man damay rafetal rek. ndeysaan xel daal jox ko mu lekk jox ko mu naan waxtaan ak moom. Mm-hmm. ku ni ma Mara doon def ba lii yëpp am. ndeysaan eh, sama xel daal na kese la mais du eh, ma ko déggee te def ma nga def benn bruit. Mm-hmm. wax dëgg yàlla sama xel daal na tamit. man te mënoon nga koo defee neneen jaan sax man naa dëkk ak moom. da ngaa baax waa xam nga dama dafa am fu may dem nii sax. waaye li ma bëgg. Mara su ñëwee nee ko. Mhm. na ma woo téléphone. te nee ko xale bi bëggum mu defaat semaine ci kër gi na def la tout xale bi balaa semaine bii di jot di paase mu génne xale bi kër gi. incha allah moom bu ñëwee. man dinaa mhm. ko wax woo la ngeen waxtaan. d'accord peut-être waxee ak moom. Mhm. dina gën a gaaw. baax na amul problème maa ngi génn damay génn léegi noo bàyyi ma dem rek dafa am fu may dem nii xam dafa am yóbbante jàmbur may war a ah, yóbbu nii amul problème dinaa ñëwaat am man ceebu jën rek laa bëgg <laughs> dama namm ceebu Sénégal comme namm naa ko ñëw ah, naa di ma toggal ceeb bu neex macha allah <laughs> maa ngi dem léegi te ñëw incha allah <laughs> en tout daal sa move moom baax na oh, bàyyi ko xale yi de sama tonton dina kontaan Mama yang pada sepuk kibi. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Tengah bëgg aduna. Wa gis so lol yow. Ay man sama yaay aduna lañ bëgg. problème am na nag. Problème yaa ngi démarrer. Nari, naari préparé wul sax pour génn. Naari mooy mbaam dëgg dëgg dëgg. Ki daf maa nar a wor. Bala maa dee rek man moom boo waxee rek yaay sama kër naa de moom mooy saa yi moom moo ëpp askan ci kër gi nag man nan laay def ba naa de génn fii nan laa war a def ba naa de génn ah. wax dëgg yàlla muy lu ma metti nag moo pour ñëw di la seet si nekkul loo xamante ne ma dina yomb du ne du ma ko def de. yaakaaruma que ni dina yomb parce que bëgguma muy woote dëkk ba di ma clamé ñu jàpp ne dama fay nekk pour taxawaalu de genre yooyu alors demee woon. Ah, dëgg la li nga wax wér la lu wer la da jóge dëkk bi ñëw fii nii te deru jigéen di xoo yàq dafa yomb kon lépp loo xam ne dañ koy xaw a ñaaw njort rek yow nga bàyyi ko moom moo gën mais nag man war nga mën sàcc di ñëw ndax. war ma am nga am ay xarit ci koñ bi wala fenen. boo seetee sa benn xarit yoon la nga mën faa jaar du yàgg man dama bëgg ñu toog waxtaan. sama génn bariwul sax man koñ bi ma fi ñëwee ba tey xaw ma fi kenn damay toog rek mais nag comme yow loolu nga bëgg dinaa jéem def ay pexe xool naka laay def ba seet si la comme noonu nga ko bëggee ndax yow moom sama frère nga. di nga def rek neex. def xaar bis papis ñëw sax. non non papis kafe rek kooku bàyyee café bu mu ko yëg sax wuy ma ba mu yëg ne ñëwoon naa fi. jëf yow non garaawut man daal yow li wax ni un ko def. Hmm. seet ci ma galé ñu tok waxtaan man am ma am ma ngi ok. va bien maa ngi sant bu baax. waaw waaw yow xaw na nga jëgi sant. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. Mara man maa la woowoon fii nii parce que xam ne mënuma sa ñëw sa kër parce que bëgguma problème ak sa jabar tamit moo taxoon ma jàpp ne war naa laa mën a woo sama kër fii nii ñu toog waxtaan te dara du ñu déranger c'est que fan yii dafay am benn question boo xam ne dama koy posé sama bopp hmm léegi nag ma bëggoon nga tontu ma ci comme ça ma mën a xam fan lay taxawee aussi. Mara dama bëggoon nga xool ma si bët nga wax que ne bëgg nga ma wala bëgg ma wala yow dama bëgg a bàyyi carrément wala bëggoo ma bàyyi nga libéré ma daal ma xam fan laa féete si yow ak fan laa toll si yow bu dee bëgg nga ma aussi wax ma bu dee aussi bëgg ma aussi nga wax ma ma xam. Kuro xam nga ni xol du bëgg di bañ euh, te tubaab dafay wax naan borom xol xamut lan moo tax sax xol ba di bëgg moo tax waykat bi naan suma xol soo ma tàgg woon doo ma yóbbee bii coono doomu aadama lu mu lu mu lu mu lu mu am ci àddina rek xolam la suma xol tooñ na ma ci yow ba noppi donc mënu mënu mën a bañ li mu dund ak yow fi ma jaar ak yow amul benn jigéen bu ma ko jaar kon mbëggeel gi dafay làqu rek may du dem mukk instant bi nag mi ngi nelaw parce que problème yi coow li mu dem ba donc bàyyi gënal ma jàpp mais finalement bu ma tëddee damay xam ni kat lii sama moomeel la man maa ko bëggal sama bopp te yow man maa la bëggal sama bopp lu am la te lu dëggu la ci man mais nan laay def aw mu paxe su ma sañoon ci suma ginnaaw ngay daagu mais situation bi moom moo obligé rek la mais tey la waa lu gën a aay. <laughs> lii rek laa doon xaar ci yow parce que malgré li fi xew yëpp maa ngi doon garder espoir que ne maa bëgg na ma ba tey que suñu amour moo ëpp doole lii lépp que dinañ ko xeex te danañ ci génn vu que ne wax nga ma ne danga ma bëgg ba tey te man tamit. jappal ne bëgg bu mu bëgg ben rek bëgg naa fukk Assalamualaikum. Waalaikumsalam. soxna si ça va. Oui, ça va bien. sëñ bi ko soxla woon. oui ma man xoolal avant may wax ku soxlaa ku ma fi indi mais yow lii lakk la walla xëm. mais kii ginaar gu ñu tàngal la wala gu ñu baxal mais yu mool yi kon am na fii. sëñ bi yow neex nga de. mais yu rafet yi kon am na fii nii yu mool yu baax yi ah mais yaa ngi mool yaa ngi rafet. waaw man yii su ma jàkkaaroo ñoom waxtaan ak ñoom dafa may neex. <laughs> sëñ bi yow ku neex nga yow. non d'accord nag maa yay neex yow ku la gis xam nga dafay neex mais à part ça sëñ bi mi ngi fi waa wala déet. non sëñ bi nag dafa jéem. ok loolu sax moo moo ma ci gënal. Hmm. léegi man li ma doon seete sëñ bi dama koy dëpp la koy seete yow <laughs> comprendre jël fi sama temps ràcc waxtaan ak yow mais à part ça xamul laa bëgg xam ci yow hmm. nan nga tudd. musuma la faté sama xel musul dan ci yow man yow ya la bëgg yow ya la xam xawma keneen bëgguma nekk ak keneen aussi te sama xol yow la tànn te d'accord naa pour ànd ci foi boobu noonu mu def kon Mara nañu nekk ci jàmm nekkaat ci jàmm sax laay wax ndax xam naa jàmm moo ñu jig te man dama laa nam mënuma dund sama yow Mara yow bëgg nga ba léegi ñëw ñu nekkaat ñun ñaar ensemble nekk ci jàmm comme ni ñu nekkee woon avant buñ xoolee suñu bëggeel bi dara di ko yàq. d'accord dégg naa la yow mënuma la bañ jeune le papa loolu mënuma ko mënuma ko donc xaw ma yi donc lan laay wax quoi su ma xol dafa fees amaa yàlla baax na. Hmm. soo ko jógee mën naa def ay câlin mën naa def ay yooyu quoi mais donc man man man bëgguma jabar ju man bëgguma benn donc li may wax suma dëggantaan la hmm. bëgguma jabar ju mën a xuloo hmm. bëgguma jabar ju mën a tontu billaahi daf may énervé man su ma waxee neen waaw finalement ñu waxtaan mais xuloo guddi xuloo bëccëg tontu ak lu ma la bëgg-bëgg ak loo war a rafet may préféré pour bàyyi la. man ci ma hmm. man daal lu ma am mën naa defal mais su ma waxee bul wax man. Hmm. voilà. t'inquiète hmm. pas loolu du problème. baax na. dina détaillé. waxtaanaat gën a xoolaat projet bi. ah waaw dañuy wax. maa ci wax wax nañ lépp de li ci ëpp important wax nañ ko bëgg nga bëgg naa ko bëgg naa lan dara. ah dara doo instant boobu instant moom waxuma dara. da ngaa wax. ah non sañ maa wax. man xam naa lépp yoo xam naa man ngay topp te xam naa nga ni la rek sëñ laa tudd. Thiané <laughs> li moo tax ma ne la yow caane xoolal man bu ma la gisee laa xam ne yow yaay xale waane. te xam naa ne képp koo roofol yaay xool jël bu la neex nga daal di koy daane. xam nga damaa namm sax yi ah. damaa bëgg yi damaa bëgg góor gu soft. yaa wax lii. mais man naka jëkk ma gis la laa xam ne yow ngelawu wax seen nga. bilaay bilaay wallaay tallaay xoolal gis nga bu ñëwee day sedd te poussière du jug. lu ne wuy ma mën nañu amante ay numéro. ci bu lay neex euh est ce que yaa xam dëpp dippi dëpp dippi non ah. <laughs> xamaguma ko yaa ngi xam aj aj sëñ bi li may laaj yëpp xamaguma yaa xam rof sa mbagal xool jël bu la neex nga daane comprendre yooyu <laughs> sëñ bi loolu xamaguma ko yi ma ne ku def ginar rendi hmm. suqi futi mu rof bu saf ah yaa wax <laughs> that wasn't Nora. wuyu ma dama lay invité. dinaa la xaar. boo ñëwee ñu bëree lu neex. dañ xool man a yow moo ciy daan morom bi. mais man yàlla nga ma daan. baax na incha allah xam naa ne gaaw àtte. fii daal lu ne la waxal waay mais à plus. aywa bye bye dégg dina ko dégg. waaw. kon yaa ngi ci jàmm. jàmm rek kañ nga ñëw. ñëw naa fi. yaa ngi jàmm. ana waa dëkk ba. ñu foofu. yaa ci jàmm. seen daal nag ay tuuti yi. sant bu baax a yaa ngi jàmm baax. maa ngi si jàmm baax. nga ñaanaa gis. maa ngi nii rek. naka liggéey bi. sant yàlla. yéen ngi si kawam. waaw ñoo ngi si kawam waaw. alhamdulilah. aarikaala. naka fii ak tooyaay bi. ah fii de mi ngi nii rek di tooy rek. ñoo ko gisandoo de seen dëkk bi daa bëri ndox. bëri na ndox kay. waaw. Ah. mbir yàlla la mbir yàlla. seen dëkk bi de boo génnee pour pour nga ñàkk a xuus moom yombul il faut nga xuus fenn. Hmm. ah ndox mi bëri di ak nawet bi nii. wax nga dëgg kañ nga fi ñëw. ñëw naa dem rek. ah dem nga fi ñëw. waaw yow de ba ma ñëwee ba léegi gisaguma la. waaw gis nga de tons man de ma maa ngi nii rek yaa ngi nan maa ngi nii toog di wax ak yow waaw biig de mom xanaa fanaanoo fi biig waaw biig moom fanaanuma fi moom fanaanoo fi dañoo amoon benn programme dañoo amoon benn piscine part quoi moo tax fanaanuma fi biig nag wax dëgg yàlla lii de man ku ma ko waxoon yow liggéey in la fi nga jóge dëkk ba dëkk sa yaay toog di la xaar nga naa ay dema dema benn pisin party benn xawma patati patata yow da man de lii ku ma ko wax dama gëm man de xam ne lii yàgg naa koo dégg mais su ma ko tegaloon sama bët non duma ko gëm quoi yow daal kon yow nii nga nii doo nga nekk ci dëkk bi ah yéen kay lii moo tax moo leen yóbbante seen yaay benn dërëm weer wu dee seen yaay bu ma yaakaar ne yóbbante ndekk yéen benn dërëm du leen ko yóbbante wala boo leen ko yóbbantee ba leen ko yóbbante waat fi ma jaaroon nag bii boobu rek bii boobu foofu laa jaar moom boo yóbbantee seen yaay ba leen ko yóbbante waat kenn doo xam kañ la liggéey in leen fi ngeen wara a futteeku liggéey xam ne seen yaay dangeen ko bàyyi ca dëkk ba mu toog leen xaar amut mënut ju ci bëri sax ma ni maay far di ko jàppale lu ne mu dugg ca fu ne mu ngus jëm fa déglu rek naadi tey dala ma duggoon ci biir dëkk bi ba seeti woon naaraa waaye naadi naaraa de lenn de la ma ñaan nee na daa bëgg ma jéggal naar yi wax nga dëgg bu ma sañoon nga jéggal naar yi ndax ci kanam tuuti dafa am liggéey bu ma ko bëgg def loo te boo ko jéggalut mun naa am loolu du antu te liggéey bi ñu jëm lépp lu ñu si may ndam nañ ko jël. dégg naa li nga wax man de dama ne woon duma ko jéggal benn yoon waaye dama ne naa ñëw ba ci yow ndax yaay sama kilifa waxtaan ci ak yow waaye comme loolu nga wax dinaa ko def. waaye dinaa la xamalit ne duma neex benn yoon ndax daf ma tooñ. yow nga dégg fi war koo jàppale ah yow lu mu sax yow yaa mag bi ba bibo yaa mag bibo ah mooy nga ay dañoo am benn piscine paateeg benn lii ak benn laa lii nga def laa jëmul kër baa leen seen yi ngay def te nekk mag. Kos yow sama yaay soo ko jàppalewul kan moo koy jàppale. ñun amuñu doole di te man weer wi jàll yóbbante naa ko 3000 xanaa daa kiiru rek ñoo ngi koy yóbbante li ñu am kii moo ñàkk jëm dëgg dëgg dëgg dëgg boo ko jàppale mag jëmm yow nga magi jëm di muskalaf war a jàppale sa yaay naan boo ko jàppale yow sa yaay man dama ci am dara yéen ma ci ëppale di la yéen la jur ah yow sa yaay nga war a liggéey fut liggéey ku dem jàppale ko ngaan boo ko jàppale yow yaay nar a ñàkk jom waaye man kii yow de xaw xaw ma yow daa mel ni bokkoo suñu famille sax jom de oh. yow yow yàlla yàlla dénku la jom yow. yow da ngaa dikk ngir xas ñu wala da ngaa dikk amul da ngaa dikk ngir xas ñu li ngeen fi nekkee laa bëgg ngeen bàyyi ko seen yaay jee sonn na lu ne ma ngi na lool fu tey ko la ngeen jàppale ko amul ku dul yéen nag waaye yéen li ma leen gisee nii naru leen fas jom man de lii ku ma ko waxoon ma gëm amul tons amul lenn tons daal yow damaa yaakaar ne tey dañ laa yabal si ñun waaye man daal en tout cas man ma la mën a xamal mooy magum jëmm moom baaxul magum xere moo baax man ñoo ngi koy def de dëkk bi moo dëgg baax na maa ngi man man ma xam ni ngeen nar a lekkee ma wax mu naan sama yaay yóbbu naa ko trois mille weer ba weer dee trois mille trois mille lu mu mën ak lu mu mën a faj kii moo man a lii ku ma ko fa ñi ko nii fi nag ay piscine party ay programme yow ay programme da indi fii yow nga nituk àll jóge ci àll ba ñëw pour liggéey si dans doole bu loo yóbbu nga ay nituk àll waaye matul nodd waay li ma bëgg nga def mooy ñoom ñaan ñëpp soxla naa leen ndax dafa am liggéey boo xamante ne bii duma leen ko bëgg ñu defal ma ko ci beneen sëñ bilim bi te gëm naa ne su ma leen amee ñoom ñaar lépp lu ma bëgg dina sotti kon baax na lépp lu ma man dinaa ko def ngir ñu ñëw wuy si la te it lépp luñ man nañ ko def ngir ñu jàpp beneen sëñ bilim bi def ci li ñu bëgg ci moom doy nga ma ci te xam naa la bu baax a baax lépp lu nekk ci man yow mi yaa ko ci def lu nekk ci gone yi man mi maa ko ci def te li ma ci def lépp ci yow laa ko jële dégg naa li nga wax sama xel dal na ci yow. te gëm naa ne yoon wi ñu jëm kenn mënuñ.